mbokk jawbe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci weeru koor gi niñ ci duggee ak jàmm yàlla nañ ci génn ak jàmm dañu nekk ci campagne électorale gu am solo pour tànn njiiti réew mi pour le 24 mars 2024 ku nekk xam na ni bu mu nee mi Sénégal bi yëpp la du Ndakaaru képp moo tax ñun suñu campagne ñu nekk wër ci biir Sénégal saafonte ak sénégalais yi wax leen ni bu ñu yàlla mayee ngeen fayu le 24 mars 2024 incha allah lii ñu gis gis ni ay problème la ay difficulté la daan ko faj jawbe ku nekk xam na ni Carrefour la Carrefour bi nga xam ni muy Guinée Guinée Bissau Mali Gambie fu nekk ni daf jóge daan dooleem ñëw fii kon fu nu mel jar na bàyyi xel ci côté production ci côté transformation et loolu dina gën indi njëriñ ci emploi wu yi

noonu laa bëgg mu demee ndax xam ngeen ni bu baax ni sama engagement politique dafa ànd ak wax dëgg jëf dëgg dafa ànd ak loo wax def ko moo tax lii may wax enregistré leen ko bu yàlla mayee ndam ngeen ci seen bopp daa ngeen ci teg seen bët parce que boobu taxawaay laa mos am ci askan wi mooy taxaw seen wet nekk ci seen yitte fàtte sama bopp te bu yàlla joxe réew mi noonu laa bëgg doonee président de la république képp ku nekk ak man fàtte boppam lenn rek ñoom la muy askan wi. ndaxte coono bi ñiy jiite ñoo ko war a gàddu noflaay bi askan wi moo ko war moom wante danoo nekk ci réew mi nga xam ne tey coono bi dañ ko jox askan wi noflaay bi ñiy jiite nekk ci te loolu loolu il faut ñu corriger ko dafa am yeneen étape yu ñuy xaar war nañu dem ba Kolda war yeeg ba Sédhiou di gërëm responsable yëpp di leen féliciter di leen wax à très bientôt bulletin bi moo nekk nii jaune bi la ak blanc bi na ngeen ko xam ne bu baax a baax bu ko defee dem bàcc que jëlee fi fi nekk indi ñu bees ñu doxal Sénégal jërëjëf et à très bientôt